tay bu fekkon dañu yam rek ci askanam yaakaar naa mën nañu jëlal waxtu bu bare bare bare bare bare bay ñew ci jangalem ci nim topé won xam-xam ak école yi nga xam ne ni jaar na fa ba ñu ñëwee tok ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass ak itam euh, Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñu ko wolo won ba denk ko daara ji lenn ci liggéeyam manam muy ci walu dolem liggéey Euh, ci tool yi ci wàllu sóob jaamu yàlla pour ñu yegg ci yàlla euh, foofu tamit euh, macha allah da gis ne sëriñ bu fekkee yaa ngi en ligne man nga ma mën nga ma seen benn request bu ko defee ma àdd la léegi nii bu fekkee yaa ngi online Seydi Ahmad nee na mi ngi mi ngi fi mais gisaguñ ko moom tamit macha allah. Hmm. you. Sëriñ Ahmed, I cannot see bu fekkee yaa ngi yaa ngi may gis gisaguma la nekkagoo nekkagoo nekkagoo ci ci kii bi Seydi Baye Cissé Ndamal bay ñu ngi lay ñu ngi lay ziaré bu baaxa baaxa baaxa baax euh ma sha allah son bi ngeen di déglu ci suuf nii mooy euh, Seydi Aliou Mbay Seydi Aliou Cissé Mbay nga xam moy Ndamal bay borom baat bu neex bi nga xam tay c'est la voix nord mom inshallah dinañ dinañ and ak mom ci bés yi di ñëw ni légui rek nam samedi bi comme samedi prochain inshallah eh, mom lañ nar a àndal incha ci ci waxtan bi di ziaré tam suñu mbokk Sofia djouf ndjay ñun ñep machallah soxna Awa Tool eh, Fat Ndoy ñu leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax hmm? eh, soxna Tabara djouf ñu ngi lay ziaré bu baaxa baaxa baaxa baax a baax mbokk yi sëriñ bi Thank you. mais aussi man ngeen def euh, bu fekkee da ngeen am euh, da am question laaj euh, bu jëm ci man Cheikh Omar mi nga xam ne nii mooy mooy suñu waxtaanu tey ci moom lañ nar a def waxtaan mën ngeen mën ngeen mën ngeen poser seen question à travers direct bi nii bu ko defee dinañ ko yeggee sëriñ bi moom bu ñëwee dina ci dina ci dina ci def ay leeral yu am solo macha allah ñu woo sëriñ bi xool fi mu toll. and that

xam naa léegi mu léegi mu war a yegg si léegi mu war a dugg si euh, Seydi Ahmad bu fekkee yaa ngi yaa ngi yaa ngi ngi gis ñun gisaguñ la ba léegi euh, mën nga ñu seen euh, request bu ko defee ñu ñu accepté la request, euh, mais... Euh, est-ce que doo ajouté, comme ça nga envoyé demande les ni. bu ko ñu accepte-le, comme ça nous ak yow ci parce que gis nañ la en ligne mais euh, gisaguñ la Oke. Oke. ok donc kon mi ngi mel ni sëriñ bi envoyé nañ ko. ba ya, mel na ni mu ngi waaj a yegg si léegi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah Seydi Ahmad maa ngi lay maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay nuyu di la delloo ziar Thiam. macha allah tey mu mel ni yow yaay suñu suñu gannu bés bi nga xam tay mom lañ dara andal ci waxtane borom xam-xam bu màgg boobu nonu nga xam euh duñ ci duggaat sax lu bari ndax doyna rek liñ ci jotta wax sank ba léegi muy euh, ko xam Maulana Cheikh ibrahim Niass du ko wolu ba euh, denk ko lu bari mu xam ci walu jangul la mo xam ci liggéeyal ko ak euh, leneen ak leneen ak leneen lu bari tay kooku mom lañ nar waxtane muy mam Cheikh Omar Touré balaa ñuy dugg ak moom ci waxtaan bi ginnaaw boo nuyoo mbokk yi nga xam ne nii tey ñu ngi lay ñu ngi lay seetaan direct kan mooy maam Cheikh Omar Touré radiyallahu taala anhu maa ngi wax a'uzu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani arrahim di ci teg alhamdulillahi xaqa hamdihi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla jamm yermande ak barke yalla def ko ci ñun ya di sant yalla yi tamit di la nuyu yow cham bu baaxa baax di nuyu képp ki nga xam ci waxtu bi mu ngi setan ak ki nga xam mu ngi koy ci waxtu bi bu mu weesoo di sant yalla mm-hmm. ci dalal bi di wax ne tontu bi gëna wër kan mooy Cheikh Omar ko mooy li gën a wér mhm. te suñ tontoo loolu den koy teg mhm. ci jaamab yàlla la bu yàlla bëggal boppam def ci ay ngëneelam nëbbu ko ñi ko neex mhm. moom jaam la woon boo xam ne kóllëre ak teraanga yi yàlla def ci moom musut koo wane ndax dafa siixlu woon wanewu Hmm. bo xamne nak yalla mo def la ko soob ci mom ta waxut lako mom miñ ko def waxut lako bo boo ne xaw ko hmm. wax nga deug laccé nak suñ lako ko mu reuy mën nga ko ñàkk xam way buñ ko séppé ben bu ne dang ko mëna tontu mu ngi melni rek ñu ne la lu nekk ci kër gi nga ne xawma ko way buñ la ne li lan la di nga ne bunti kër la li lan la di nga ne plafond la kon hmm. laccé bi kan moy Cheikh Omar Touré deug deug man xawma ko macha allah euh, mbokk yi kon gis ngeen dafa mel ni waxtaan bi neex na ba pare am nañ gan gan bu mag gan boo xam ne tey c'est un sage euh, waxam dina la delloo ci xam-xam ndax li nga wax ni yaakaar naa mooy xam tey sax du ma wax sax yaakaar naa waaye mooy xam-xam ndax euh, imam malik radiyallahu anhu bi nga ko laajee daf ne daal genn wàllu xam-xam mooy xaw ma te daf mel ni yow sa waxtaan noonu nga ko noonu nga ko mais xanaa du ñàkk rek dinañ la laaj tey boo ñu doon wax mam Cheikh Oumar Touré ñan ñooy ay way juróom askanam fan la loolu mun na cee tontu tontu ba cay njëkk mooy histoire buñ bindul ni du ci ñàkk ndax mboolem istuwaar yu yonantu sallallahu alayhi wa sallam werante woon mooy Muhammad la tudd Aminata ko jur Abdallah ay baayam lu dul loolu werante neen ci. Hmm. am na ñu ne fukk ak benn la juddu ñii ne fukk ak ñaar. te hmm. yonantu lu bari ci mbiram yàlla ko nettali. nettali bu feeñ mu ne dàng nag. Mhm. yàlla mu mag moomu wax na ci lu ne mhm. wax na fu ne waaye mhm. waxam yu bari ñu ngi koy xaar ci alquran mawlana alhaji cheikh omar radiallahu anhu dafal salli saalim mawlana alhaji cheikh omar radiallahu anhu yaayam mu ngi tudd fatumata sise waaye ñu ngi ko doon wax yaa faatu sise faatu boobu yaayam a ngi tudd caane baayam mu ngi tudd laayeen ñun ci saalum saalum bu tur yi baree ku ne dafa am nuñ lay dàkkantale ñu ci ëpp seen yaay leen leen di dàkkantale ñu ko daan dàkkantale hmm. maam faatu caane hmm. baayam mu ngi tuddoon maam alaaji maxtaar maam alaaji maxtaar ture Mhm. cosaanam liñ ci xam Saalum la mhm. ñu ngi nangu yi tamit ne bokk na ci sëti Kaatim Jungali Ba yi nga xam ne moo jóge woon Mali doon boroom xam-xam te boroom wilaaya boo toppee askanam mhm. foofu la jóge néegi ndey Cheikh Omar Touré ñu ngi jóge ko ci Cissé Cissé ñoo ko meññ ndax maamam bu góor Cissé la sant ñoo sañ ci kër layen leen dëkk ci Saalum walu ndeyam sise la salum salum la walu bayam ture la salum salum. la bo len genné salum nak mom manding la euh, so démé manding Premier capitale l'islam bu ñuul ci mali ñi fa nekkoon serigne ñett lañu sise touré jaane ñom len nan touré nga na manding muri. Sise nga na manding muri. Janengana nga na manding muri. ñom ay bour len won serigne len won Mm-hmm. moom it wax na ci làmmiñu boppam mu bind topp na mm-hmm. askanam ba ci saxaaba yonantu sallallahu alayhi mm-hmm. kon bu nit waxee ne Cheikh Omar Touré shérif la daf koy teg ci ne doomi jullit bu gëm yàlla ak boo seetlee shérif nga waaye askanam daal liñ ci xam ñun te teewlu ko ma delluwaat waxaat ko histoire buñ bindut nit mën na ca wax lu nit ñi d'accordut waaye képp ku ñu wax loo nga wax loo xam say responsabilité wàcc na li ma xam ci mhm. suma daytuwaayal xam-xam mooy baayam baay Mouhammad Makhtar Touré la tudd yaayam Fatoumata Cissé la tudd cosaanam Saalum la ak Manding soo demee Saalum mhm. ay géer leen ay gor leen gor jikko la géer juddu la du jaam du tëgg du géwél mhm. géer la loolu askan ci aada ndax dinga ñëw ñu ne la géwél yaa ngi nii jaam yaa ngi nii tëgg yaa ngi nii ñeeñoo yaa ngi nii amul ci lislaam waaye am na ci ñun suñu aada suñ demee ci aada nag askanam géer la suñ génnee Sénégal nga xam ne ñun ñëpp dañoo ñëw Afrique gu ñuul gi ci capital bu njëkk mu ngi commencé Mali ay buur leen ay sëriñ leen ndax ñu ngi bokk ci ngana man ni muur kon lii mooy ndeyam ak baayam ak askanam ci li xam macha allah Seydi Ahmed Cissé ñu ngi lay santaat di la gërëm beneen yoon ci leeral yu am solo yi nga xam ne def nga ko ci euh, wéyjuru maam Cheikh Omar Touré nga xam ne yaakaar naa buñ ko bëggee def taxliqaat dafay dafay jël suñu wax su lu lu bare bari bari waaye daal euh, mën nañ cee déggee rek ne euh, ñaari borom ñaar ñu sell ñoo ko boole meññi muy suñu maam Maxtaar Touré ak maam Fatou Thiané Cissé. ñi nga xam ne ni eh. tey yaakaar naa ñoo ñëpp xam nañ leen ci xam-xam muy siise siise yooyu nga xam ne moom nga tudd léegi léegi léegi léegi léegi pour bañ a guddal suñu suñu waxtaan bi suñu euh, temps bi mais sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne maam Cheikh Oumar Touré gane na àddina ci diggante ñaar ñu seetlu ñooñu noonu euh, Saalum liñ ci xam mooy ku juddu da jàng man nañ xam maam Cheikh Omar Touré njàngam fan la tàmbali ak euh, ñan ak wala kan moo ko jàngal. bala loolu. Mhm. ba Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu ay waajuram ci wàllu baayam ay boroom xam-xam lañu ñu amoon leer leen ñu amoon wilaaya leen maamam ci wàllu yaayam mhm. sori woon neen ci tarixa tijaan ba amoon neen mbooloom jinne nijaayi Cheikh Omar Touré moo dàqoon a faj jinne ci Saalum ndax moo mënoon alligéey jinne te alligéey jinne moo jommaloon maamalaaji Abdoulaye Niass ci jinne ndax toog mhm. neen di waxtaan mu ne ko ana jinne sàngam maamalaaji na ko deena mu ne ko déedéet mu nga Côte d'Ivoire fañ toog mhm. mu indi jinne ji maamalaaji xët ko na ko alligéey jinne ke rek leen ko woowee alligéey jinne Aly Gueye Djiné moomu nijaay Cheikh moo ko yéemoon ndax moo ko hmm. jàngaloon xaatimi Souleymane bi ñuy sangoo juróom-ñaari fan tey faj jinne hmm. kon ci famille bu foor la bokk hmm. bi nga xamee ne baayam ma maxtaar ñëw na yaay Cheikh Omar Touré jiituwut ci kër ga du soxna su njëkk ñaareel la wala ñetteel mamalaaji maxtaar di góor ak yalla go xamne mhm. lepp lu yalla def ci mom bimu gisee mama mamalaaji abdoulaye ñas dafa sukk ci ronam mhm. ak mom te yalla tax def ko serigne mhm. ñaar nak mo am nga bëgg mag joxe sa bop ngir nga mag nga doon ko mag ba pare gis ku la gëna mag nga gore jox ko sa bop mam maxtaar dafa doon ko mag gis maam alaaji abdoulaye muy ko mag mu am modeste ak total humble sukku ci ronam jox ko hmm. bopam mama laji abdoulaye mo jox baye cheikh omar touré lijaasa hmm. tànn nako di yayam ya fati sise hmm. sañcee jay ci 1900 am ñaari neek benn bi góor gi benn bi ñaari jigéen a war a bokk ñaari wujji kuñ laaj koo bëgg a bokkal mu ne yaay Cheikh Omar Touré la bëgg a bokkal Mm-hmm. ma ne doy na nga tagg jigéen ju yiw ñaari néeg ne fa foog ñaari wujju bokk kuñ laaj mu ne yow la bëgg a bokkal yow buñ la laajee nga ne kuñ ma booleel baax na mm-hmm. loolu tagg bu rëy la mbir mu xóot la waaye jamono nag moo toll foo xam ne feeg waxuñ karaama rek nit ñi duñ yéemu waaye jikko bu rafet ba nit ñi jar laa ñeme loolu mooy dëgg-dëgg karaama meloon na noonu demoon na ba wujjam yi moom leen gën a wóolu ci seen bopp kooku mooy yaayam Mhm. Maam Alaaji maktar, nekkon ko xamne ne nit ku kawé la ndax mhm. euh, suma mam alsan Kumba mi nga xamne mhm. ne jur sey dalu Cissé domi bayam bu ñuy wax alsan Mbombe dafa julli ci fajar ne mi ñëpp ci ci kër gi gis na yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam mu ngi ànd ak dem njanjaay ñu ngi ci gëlëm hmm. mu ne njanjaay leen gëm leen jëm Cheikh Omar Touré moo eh, Mame Makhtar Touré moo génn àddina fam ko hmm. nettalee ba pare Cheikh nekk ci welo bi nekkoon ndaw amoon fukki at ak nangam hmm. ci la ñëw jaale si sa jaale si ko ci dëkk bi fekk yonoon toog Seexu Tijaan a ngay dem noonu la mayam tolloon benn bis dafa toog di laazim moom alaji maxtaar ci ron garab ga ca njanjaay maam alaji abdoulaye amoon na baaxi bu laazimee ba pare ba def la muy def dina wirda ay wirda yu bari yi wax ne ne dina wirda am xawiyu latif teg ci xasba la douze mille teg ci lay lay la douze mille waaye li wir moom mooy su jullee tàkkusaan dana wirda lu bari loolu wér na waye lan la daan wirda mom sekere mag ñi la man xawmako ko daaju hmm. Maxtaar bim toge ci pliyan bi di wirda mu am gor gu mag gu sel gu ko ñewal hmm. nuyu ko nako sa soxna sele di fati Cissé hmm. mu ngi ëmb doom joo xam sangi jamonoom lay doon kenn du ko ëppale ci mayi cheikhou Tidiane te kenn du dox digganteem mag cheikhou Tidiane Mhm. man nak ñëw naa pour ma denk ko suma mbir ndax kuñ wolu lay doon mhm. suma sañu nit nga tuddé mako moko moo ko ñaan turandooram mhm. mu nangul ko ko may ko ko xalé ba juddu ñu tuddé ko Cheikh Omar fouti ka feñu won ma moy Cheikh Omar moo tax moom Cheikh Oumar Touré musul woote waaye benn bis toog na ne xabarakàlla keñ ma tuddee fa mu juddoo ba ca keroog ba muy dugg ci ron doj ba dara umput ma ci dundam loolu moom wax na ko. d'accord. ndax Ibou Diouf a waxoon ne borom tubéy bu jàngoo sol ku réer nit ñëpp doo réer sa bopp. Mhm. kon lii mooy sababu ñu tuddee ko Cheikh Omar Foutiyou taal tuddee wuñ ko Cheikh tuddee wuñ ko Seydina Omar saxaaba yonantu. Mhm. Cheikh Omar Foutiyou Tall leen ko tuddee. ni la histoire ba demee ci mok bayam mu denk ko mbiram ñaan ko mbi tour bi ñu may ko ko mu judd ñu tuddé ko Cheikh Omar fouti tal, mom dafa walé maqamam tuddul Omar Cheikh Omar gi da ko hmm. juddwaale walé motax kenn musu ko ma sha allah moy mooy mu ngi juddu hmm. ci atum tubab 11 hmm. janvier 1902 Baye Niass ñaari la ko magé kon mu magé señal yu ñaar yat sëñ yu magee sëñ Abdou Aziz si kooku magee Senghor ñaari at mun nañ ko topp ba 2020 waaye li wér mooy 1902 la Cheikh Omar Touré juddu 11 janvier. Mm-hmm. mu nga juddoo Njaañ Njaay diggante Passy ak Joosong ginnaaw ginnaaw Joosong diggante Passy ak Sokone dëkk bu mm-hmm. wax Njaañ wolof bàyyi ma ko sanc ñaari néeg a fa amoon yee kuñ ne ko bëgg bokkal mu ne yaay Cheikh Omar Cheikh Omar Foutiyou Tall feñu bayam denk ko mbiram ñan ko torondoor mu judd 11 janvier 1902 ñu tuddé ko Cheikh Omar Foutiyou Tall li moy juddo alhamdulilah rabbil alamin serigne bi daf nga waxtan bi mais aussi tamit tënkaalatal nga ñu ko beneen yoon ci buñ la déggé bu baax. euh kon yaakaar naa foofu leer na mbokk yi nga xam ni tay yeen ñu sétane ñu ngi and ak euh, Seydi Ahmad le sage borom xam-xam ko xam buy wax do bëgg sax mu noppi da ngay da koy bëgg bàyyee nopp rek laaj ko li nga koy laaj bàyyi ko moom mu wax dana la ko tënk dana la ko waxal ba pare tënkal la ko ci anam boo xam ne nii yow miy déglu doo am doo am doo am jafe-jafe ci mën a comprendre li nga xam ne nii moom mooy waxtaan bi euh, doy na ci rek ci li mu wax ne kon maam Cheikh Omar Touré nekkul ne Seydina Omar Ibnul Xattaab moom lañ ko dippee waaye Cheikh Omar Fouti yàlla bu màgg boobu nga xam ne euh, Mawlana Cheikh euh, Mamadou Abdoulaye Niass fonkoon na ko fonk goo xam ne. Euh, dégg naa fu ñu mosaan tuddee ijaasam sax dafay jóg taxaw màggal ko ngir euh, dayo bi nga xam ne Cheikh Omar Fouti am na ko ci diine l'islam mi am na ko aussi ci tariqa Mawlana euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu sëriñ bi beneen question bi nga xam ne sànq moom lañ dugaloon léegi ndax ku juddoo ci boroomi xam-xam sa wéy jur di borom xam-xam nga bokk ci askan ak daraja ji nga xam ne ni moom la ko yàlla may tay ku tudd nit ku mag da nga dana tudd jaar-jaaram ci walu xam-xam tay jaar-jaaram ci walu xam-xam fan la dalé kan moko jëk jangal ak ci yeen école ci yeen daara la ma xexu Oumar Touré génné xam nga mom dafa juddo personnalité suma gor gogo <laughs> he's a gentleman. dafa am dafa am. dafa am fukki ak ñaar ñi ñu ne fukki at ak ñett ñi ne fukki at ak ñeent bàyyam génn àdduna mhm. ah bi bàyyam génnee àdduna boobu bàyyam sëriñam moo doon maam alaaji Abdoulaye Niass mhm. maam alaaji Abdoulaye ba muy ñëw pour suturaal bàyyi Cheikh Omar Touré dafa fekk ñu sul ko ba pare Mawlaaj Abdoulaye na leen bingin ngeen koy dugal ci pax mi daanuwut ñu ne ko waaw mu ne yonoon toog ñoo ko doon yàkkamti ba jël ko looloo waral niw bi daanu. mu nekk xale magam yi dem seen kër Baay Alaaji Abdoulaye Niass ndax mag ñi dañoo amoon kóllëre te nekkoon benn Saalum léegi ngay dégg taalibe diw laa taalibe diw mais magi Saalum yi ñoom xamuñu woon tarixa mbokk gi leen jiitaloon bi leen jiitaloon bi mam mhm. ganyo, gaño kon mama la abdoulaye moy sen bay ndax sen bay la mu mu mu fekki mbokam yi ca dara ja mhm. mottali alquran lew na ñaseen mhm. eh, balaa boobu nag bi ba bi mama la abdoulaye ñu di ñew andon na ak alaji omar àndoon na ak maam Khalifa àndoon na ak Baye ca Wotir ñu ñëw Njanjaay hmm. mu gis Baye ak taaram bi nga xam ne waaja wax na ne melow Yusufa la jër ki rawoon ci ay taar bekku ku hmm. janoog moom Baye Niass koy sopp ndax dafa yor leer hmm. moom Cheikh Omar bi gisee Baye rek mu dem ci yaayam ne ko suma ndey suma doomi Baye El Hadj Abdoulaye jii dee fa ma neex man faa ko bëgg. faa bëgg nga may ma lu ma ko takkee xarit. yaayam génnee soow ak caagri may leen mu dem ci maam El Hadj Abdoulaye ne ko doom ji la neex man faa ko bëgg. Hmm. maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallahu anhu jël loxoob Baye ak loxoob Cheikh Omar Touré. teg ci hmm. ànd bi. yàlla ko waral maa ko ñetteel Cheikhu Tidiane na ko ñeenteel. léegi. ba mam góore demee fekki magam ca daraja Bay gis ko hmm. delu ca yaayam ne ko suma doomi bay Makhtar bi daf ma jàppoon xarit hmm. yaayam mako ko so ñu xarito suma baye ko sédé dama bëgg nga may ma manit lu bako jappé xarit comme ñëw na suma kër baay mamastu janka hmm. jox bay ñess bay mané loolu la bay fofu fofu la bay nekké sëriñ Cheikh Omar Touré kula jox so nga jox ko bay xam nga bay bay moy génné so <laughs> kii soow ak cagri la la takkee xarit yow ba nga koy takkee xarit nga jox ko luy génne soow loolu rek mooy moo wane seen ànd mooy kii jeex na hmm. ci kii takk kii jox na kii la lim amoon lépp hmm. waaye Baye Niass nag mooy ndawali lëndëm boo lamb mu gën nooy ba nga làmb noonu la mel <laughs> bugguma exagérer tuuti mu ëpp ba mel ni dama bëgg a wax ne Cheikh Oumar Touré léppi Baye ci cadre bi may waxee moo laaj loolu waaye ñëpp a jëriñu ci baay euh, bi mu demee ci dara ja ñuy jàng alquran mu nekk ak baay nekkin bu rafet moom mu bind ne jàngut ci xam-xam lu jiitu lax dari bàyyee ko ko jàngal ba mu tëjee téere it bàyyee ko tëjal téere mu ne bi bàyyi tëjee téere jàngal moom moo ko wax. Hmm? moo ko bind. mu ne hmm. ubbiwut téere nit jàngal ko lu njëkk laxdari tëjut téere ginnaaw bàyyi te bi ko ko bàyyi tëjalee ba tey ubbiwut ko. Hmm. soo baasewul ci loolu di nga sañ wax ne bàyyi ko jàngal xam-xam. li waral mu génn kër baayam mooy baayam dafa teel a génn àdduna te kilifa mbaar la ci kër bu fa jugee rek kër gi tawte. Hmm. te am neen bay bu mel ni maam ñess Abdoulaye Niass Kaolack ak Njaanjaay soriwut këri hmm. la leer ku fa dem da nga yokku da nga xam ñu dem fa te yokku neen xam neen mom hmm. njangam suñ ko doon teunk kër bayam la ak kër ñess bam paré ci alquran keneen jangalu ko kudut bay ñess tabul fatale bay ñaari at la ko magee sering bula la nyari, ñaari at nga nangu ko jox sa bopp mu commencé la lax dari ba tarbiya la ba tarxiya la sering mhm. dëgg sëriñ bi mat na way nangu nga macha allah mais sering bi fo bëggon ñu am fa dara loñu fa teunk ndax dañuy dégg parfois ñuy wax ñu né euh, mam Cheikh Omar Touré ginaaw bi nga xamé né jang na ci ron ay wayjuram ba yalla may ko fa lam fa lam ko fa may ci xam-xam dafa melni gënaaw ga njëkk muy ñëw ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass laxas na jàngi feneen ci mel ni euh, moo xam Ndar la wala Thiès ba ci am na ci yeneen dëkk yu bari yoo xam ne ni maam Cheikh Oumar Touré jaar na fa njëkk muy ñëw di basé wu nag définitive ci euh, euh, Mawlana Cheikh Ibrahima Niass loolu ndax taarix la bu wér wala loo xam ne dañ ko dañ ko yokk ci ci taarixam. non man man bokkul suma mbir weddi man mom wedi, ma weddi waaye toujours dina precise be nga xam man lan moy suma conviction ci lima lay wax li hmm. euh, jugee nekkon na diggante ko sék lewna ci bay hmm. responsibility yi bari ci mom ngir ko óolu jox ko responsibility mom mu japp ne li munta andak ak mu jugee fa dem su da fay ñëwaat dem na jaamal Bim deme Jamal baye ko bind letter bo xamne ne banke ko sa loxo bi doko gis gis hmm? ne ko mang lay lentalu ci yalla mi ñu boole hmm. Matar Uli ak Serigne Uli Touré ño bokk ndé ak baay ño togon di waxtar muné ne ko jelsi barakalla fa foog ne dinañ ma jël ci dé muné ko kulay jël ci mu ko kenn rek ma saña jël ci fa mu waxee parewul fa leen fas bi jox ko mu ubi, bay Niass mo bind nako asalaamaaleykum maa ngi lay lentalu ci yàlla mi ñu boole man ak yow uyu si na nga ñëw ca bis ba moom Cheikh Oumar Touré ba mu demee jaamaal fala defaree néeg moom kenn moo yëkkati càkkaaba gi ba ci kaw teg ci suuf moo lay wan mëtam ak ak ak kàttanam noonu la ñibbee keroog la ko bàyyi wax na ko Cheikh Oumar li ma xam boo ko xamee du la doy mu ne ko ah barakalla dana ma doy de mu ne toog fi lu ma xam di nga ko xam keroog dematut fen waaye essayé na pour jàngi yeneen barab waaye du dafa demoon ba mujjee ci baay déedéet foofu la nekkoon xam nga tey ni mel ak baay ci xarit la doore mhm. doore ci bokk ci daara ja mhm. ngay seetlu nit ki ba nga xam ne óolu nga koo jàngal mu jàngal la xam-xam nit ki mën na laa jàngal xam-xam te du la yar nit ki mën na laa jàngal yar la te du la tarbiya nit ki mën na laa tarbiya te du la tarxiya maanaam sëriñ mhm. dafay màgg nit sa bay sax mën nga judd ci kër gi mu doon sa bay ba judd doon sa sëriñ wala nga hmm. mujj doon jaamam ànd bi daf doon mag hmm. ci diggante boobu nag hmm. responsabilité yim doon gàddu pour moom munta ànd ak jàng ndax moom bi mu nekkee xale dafa taxaw ne ha barakalla man cheikh omar dana jàng ba àdduna xam ne jàng naa su yalla, xamee yàlla su xamul yàlla lii moom moo ko daan wax moo tax dafa am personnalité dafa am personnalité léegi déta détermination boobu nekkoon ci moom ba à hmm. l'âge de douze ans mu mun a wax ne danaa jàng ba àdduna seede ne danaa jàng su ma xamee hmm. yàlla su ma xamut yàlla looloo nekkoon ci moom ba bi responsabilité yi bëree dafay bëgg a dégager wu foofu looloy waral mag ñi den daan dem dara su leen koñ bi miinee xam ne am nañ wilaaya di leen ñaan loora ñu tuxuwaat parce que bëgguñ hmm. dérangement loolu détermination moo koy def léegi-léegi sax man mu ñàkk fayda mii dinaa bëri ay whatsapp ba supprimer suma whatsapp parce que dama bëgg a way tuuti léegi hmm. imaginel hmm. nag ñu am détermination yi nga nekk place ñu xam sa baay xam sa hmm. njub xam sa man xam sa ragal yàlla xam sa xam-xam nit ñi ku ñëw jàngal ma nangam den lay distract léegi distraction boobu noonu dafay tax na nga puus mamu nga tan pesi tali bi jaar fa dafa demaat sanc pësi ñu koy pesi sanc donc daf tan am ci mag ñi mom la Abdoulaye mo sanc kosi lutax togu fa mo lewna Eh, eh, eh, moo moo beesal lew na kon moo nekkoon tey ba lu tax toogul foofu distraction mhm. ak ndigali yàlla donc dëgg la dem na yeneen daara waaye du dafa dem feneen mujjee ci baay déedéet dafa nekkoon ci baay muy am distraction te mu am commitment and determination ci li muy def li mu dem wuti xam-xam feneen mhm. moom wax na ne la ku jàng ci sëriñ bi fa ngay xeeb boroom xam-xam mu ne soo jàngee mhm. ci baay keneen di wax mu ne danga koy xeeb loolu xam nga demoon na feneen. indiwaat boppam ndax munta dégg. munta dégg. bi mu demee jaamal nag bàyyi ko bind leetar mu uyu ko keroog ba mu uyu jee bàyyi ba tey dëppaatut. ndax wax ji dafa leer ndax li ma xam soo ko xamee du la doy. mu ne ko waa mu ne ko toogal lu ma xam di nga ko xam. macha allah tontu ci loolu waaye tontu bii nag terewut ne taxut ne dama weddi ne demut feneen dem na feneen man li laa xam. Mhm. dëgg la ndax macha allah loolu la ñuy wax sax naan xalaa mooy li olof di wax naan euh, ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee ndax euh, li ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xamal bi mu demee feneen yi tamit dafa mel ni euh, gisu fa boppam santiro fa boppam waaye mm-hmm. sëriñam mat mataay goo xam ne nii moom dëgg-dëgg dañuy wax ne boo nekkee xaw ma picc xaw ma nan mëri na boo génnee feneen tan nga fay doon. Euh, loolu yaakaar na kon euh, seetlu nañ ko ci wax bi ak euh, ñi nga xam ne noonu nga ko noonu nga ko noonu nga ko définir léegi sëriñ bi dañuy ñëw ci Maulana Cheikh Omar Touré ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass am nga loo ci junj sànq ci ci commencement bi ci seen seen àndu ñoom ñaar ci li ñuy wax ni yëpp nag njëkk faydu la parce que ba tey dugguñ ci faydu dañuy ñëw rek ci ñoom ñaar seen seen seen seen relation ci bi ñuy ndaw Eh, ana lan mo ci gën a marquant à part maiko, eh, eh, may ko meew ki may ko bay ndax amna na yo yoo ni amna ci seen digënté ñum ñaar ci bi ñuy nekk ndaw ah waaw waaw xam nga xol bay bam neex la nga ne ko ha barakallah bu ma la gisoon nga tegg sa tank ci sunna ma romb la bay xol ko bam neex ko mune bima bi cheikh omar ba tay musta wala mu def ci sunna musta wax wala mu def lu dul sunna loolu dafa marka mooy ne ànd bi baal ma tuuti rek balaa ngay dugg foofu nag dama bëgg foofu tam nga leeralal ma fa benn parce que wax bi yaakaar naa dafa laaj déglu ak setantal euh, Cheikh Omar Touré mu ne bàyyi su ma la gisoon nga teggi sa tànk ci sunna kon maanaam moom amoon na fu mu toll ci charia loolu laa bëgg nga leeralal ko mbokk yi nga xam ne ni ñoo ñu seetaan moom fan la tolloon ci charia ba tax mu ne Maulana Cheikh Ibrahim bu mu la gissone nga teggi sa tank ci sharia kérok ma Cheikh Omar Touré moy jëmmi sharia bind na ci julli Baye ñess mo bind ci ron kayit gene li cheikh Tidiane ko bind wallahi tallahi bind na ci julli bay ñess bind ci ron kayit ge ne li cheikh Tidiane moko bind kooku moy jëmmi sharia dëgg la Allah Cheikh Omar Touré tasna daaira kërëm ngir dafa toog jigéen ñi salaamaaleykum salaama mu ne xabaarakàlla nuyub jigéen ñi bëri na tey da fuñ jëm ñu ne ko daayra xabaarakàlla ji góor ñi fañ fay ne ñu ne waa mu ne tas leen daayra foofu la sunnaam emoon hmm. génn na di julli ji gis jigéen ju amul bopp mu ne xabaarakàlla anay mbokkam yi ju xamutoon ne sa jigéen mun naa ñàkk musóoru hmm. fa suma papa na ko xew mu ne lu bon kay du musa xew <laughs> <laughs> Manam ni melon meloon ci julli. Mhm. soo ñëwaan këram julliwuloo doo añ. rusewul mhm. la ko. Mhm. Baye seeni Niass mooy imaamu Taïba Niassène dafa génn àdduna. maa ngi ñaan yàlla yërëm ko te yokk leeram. dama dem ci moom ma ne ko man damay gëstu mbiram Cheikh Omar Touré. bi ma ñëwee dama gis nga nuroog moom mu ne ma daf ma bëggoon te dama ko bëgg mooy suma sëriñ man. Nesan. Mune ma gint hmm. na bai, na ma ziyarel ma sa sering. Chila laa ne man taalibeeb Cheikh Omar Touré la mom, mom bàyyi se ni nyas. imaam yi tey ba ñeseen ñëpp ko hmm. ma yow looy wër di kam lu Cheikh Omar Touré man mo ma yar man ki jirom juróom fuki ati top. Digente hmm. juma jak fi, jaag dama koy ko ñaari yoon suma ngir mo ma yar allah akbar mu ne moom suy julli ji jumaa ja dafay noppaleku ñaari yoon ci yoon bi li tax ñi mawut mhm. a jullee këram mooy Cheikh Omar Touré ko yar mhm. mu ne ma soxlawuloo xam ko li nga gis muy dund rek mooy Cheikh Omar Touré mhm. dafa jëfee sunna ci noppi jëfee sunna ci wax jëfee sunna ci dal jëfee sunna ci lépp moo daan wax ne sariya bu leer moo da xaqiqa bu leer. moo daan wax ne xaqiqa munta leer lu mooy sariya leer. musta def lum amalut lay ci diine. Mhm. moo lay won ne àndam ak baay teguwut ci yaama neex ak yaa am maqama sàngam dafa tegu ci sunnatu rasulillahi ndax mooy ne visité na baay xool na ko ci zaahir xool na ko ci baatin na ko xabarakàlla sëriñ bi. bu ma la gisoon loolu passé na mooy gisuma la nga teggi sa tànk ci na lu yem ni eh, karawit fas mhm. cunkóor cunkóor leen koy mooy mhm. kawar gu nooy gi ba doo ko mën a jàpp nga xam ne buy tàng di lakk mu ne konoon ma romb la dem mhm. loolu mooy dayo tagg bu nit mun a tagg bàyyi ña waxi ture boobu boo ko peese woon Mm-hmm. fay tolok ak waxi Seydi Aliou Cissé bi mu wax ne. Mm-hmm. lepp lu la réer ci Baye Niass rek mbax go xamut la. waaye boko ko rek xam Baye bax mm-hmm. waxi seydi Aliou bobu nonu boko pc ak benen waxam ba mom Seydi Aliou. bi muy wax ne serigne bi. moy ko xamne mën nañu wax ne aduna yeb la jëriñ. Mhm. mu ne boo demee bay wax ne jëriñut la xalaatal ne bàyyi musut laa lor ñàkk lor googu mooy jëriñ. dëgg la. maanaam benn terme la rek ku ne ak ni nga ko utiliser. bu Cheikh Oumar Touré mhm. taxawee fële mhm. ne su ma la gisoon ci su ma la gisoon nga teggi sunna ma romb la kii taxaw wax lii lépp benn liñ bëgg a wax rek mooy kiñ àndal dafa mëtt ci sunna la teg tànkam. bàyyi seedeel na Cheikh Oumar Touré bind na. man bàyyi musuma gis Cheikh Oumar Touré mu def wala mu wax lu sunna sunna do ko jëfé ta xamoko wala sa xol bi amul leer mëno mm-hmm. jëfé sunna te sa xol bi amul leer wala jango sunna wala xamoko sen and ma ngi wat ci lacc bi ndax tontu bi def na ci 6 minutes ma wat lacc bi moy yang ma laaj ne lan mo marke marqué ci digënté andi bay ak Cheikh Omar ma wax la ne li ci gëné marqué moy li Cheikh Omar Touré xol bay bam neex ko mu ne ko boo tegli hmm. woon sa tànk ci sunna ma romb la te musu ko romb loolu lu muy tekki hmm. mooy sunna rek la xam te moom la jëfe waaye it bàyyi na ko loolu mooy ne kon hmm. yar bi rafet na waaye ko ko yar it mën na ref mën na yar lenn it gën na am marqué Baye wax na Cheikh Omar Touré na ko li yàlla def ci man bu ko defutoon ci man ci yow la koy def Cheikh Omar wax na bam mu ne ha benn mbootu rek laa xaj bu sëriñ bi mooy bàyyi rek ko attan moom. ndeysaan wallaahi. benn mbootu rek a ma moo da bu sëriñ bi. wax na moom Cheikh Omar Touré suma bàyyi la ko wax mu ne bi ñuy dooro jumaay Medina bi mu ne ndiggam li ci la yebbeekoo ba tey nu màggatee. Hmm. Hmm. bay laaj na addiya cheikh omar touré diko maye ba buddi lali xaalisam may ko ko amul fum teud ko tay yaangi melni bi babakar maye ba dese ben frog malayka yi sol frog di ko toppandoo tey yow yaay babakar ndeysaan d'accord d'accord d'accord bayal na bay ñes tol bu mag bayal bopam tol bu ndaw bay ñes xam nga moy jëmmi yërmande hmm. mu ñew sëriñ bi diko won tol bi ne ko habarakalla barakalla bilide ya ko mom bele njabot ge ko mom bay mhm. xol bu mag bi xol talibe mhm. yi bobu mustafa gay mi di wax mu ngi fa don jang papa mhm. cheikh khalifa bi genn aduna mu ngi fa don jang dara jang fess del khadi gambi bi mu ngi fa don jang mandem mu ne ko jox ma bu ndaw bi te jël bu mag bi mu ne ko habarakalla serigne bi fa nga bëgg bele mu boole ñaari tool yëpp jox ko ñes <laughs> <laughs> ndax moom bii la jox baay baay tànnal boppam bële ngir yërëm ko bi baay tànn bi mu tànnal baay mu jox ko baay des ak baay. Mhm. Mhm. ndeysaan moom foofu la tolloon ci mbëggeel. ci xidma. Mhm. mag ñi dañ leen daan jaxaseeg baay. am na ci yu bari yuñ dul nettali ci ron rawatina ci mag waaye mag ñu bari dóorante neen leen ak baay. am na ci ñu rëkkeeku am na ci ñu soriwanteeg baay am na ci ñu lënt-lënt am digganteem ak baay ndax yàlla ak seetaane musta tàqali ko te këri yàlla gune seetaane fa mhm. Medina al munawar leen koy dàkkantale bi yonent di dund ci leeram geeg mëtam gi juróom-ñett fukki naafeqan fa <laughs> kon bu mu dee ñaataa fa ne kon c'est tout à fait normal ay naafeq nekk ak i nit yàlla ndax yonentee ca muccut biñ ko jaxaseeg mhm. bàyyi ci tool bi dafa jógoom yàgg mu ne xabarakalla Cheikh Omar da liggéey yàllaay fay Mhm. yàlla dana ma fay bañ xam ne yàlla fay na ma. noonu. ndeysaan. Mhm. moom noonu la amee woon. Mm-hmm. Eh, mel ni réseau bi mi ngi commencé mi ngi commencé naxari eh, sëriñ bi waaw bismillah no xam ku doon woote di insister bloqué naa ko exactly thank you <laughs> macha allah ba pare ma on ma on block ko <laughs> li nga xam ne mo moo nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ci andi bàyyeeg Cheikh Omar Touré hmm. benn wax rek moo ko dëggal moom Cheikh Omar Touré moo ne xa barakàlla fi ma ànd sëriñ bi. Mhm. kenn jiituwut ma ci te kenn fekkut ma ci. Mhm. ma ne ko mën naa nekk. Mhm. ndax li yàlla amoon jox na ko yonantu yonantu du yàlla waaye yàllaay yonantu. noonu la yonantu mel ak Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane noonu la mel ak Baye. te puus xool asamaan jarul puus kon kay nit mën naa mel noonu ci Baye. te du xañ mhm. keneen jërëm dëgg la akal. Kan? Mhm. seen ànd ànd bu yàlla taxoon la ànd bu bari njëriñ la. Mhm. ànd bu bari sekere la. ndax yaa Zara Cheikh Omar Touré ko dalal Basin Mimara ba Arrahmaanu. papa Cheikh Cheikh Omar Touré ko doon jàngal moom la ko bàyyi joxoon mu yar ko bàyyi dem ba xam ne Cheikh Omar Touré mii ak papa cheikh mbeugel gi nek seen diggante ak nim koy xolé mu jilé ko fi yobbu ko murtani ngir xam na ne hmm. jappé wut suma dom domam daf ko jàppee doomi sëriñam hmm. papa cheikh wax na ma ne su defaan dara ba cheikh omar dur ko day contane ndax ganar lay réré mom la koy neexale xam nga jangal xalé dur ko jox ko ganar <laughs> njang ma fay mujj doy war ci la ko jël yobbu ko murtani mom papa cheikh daf ma daan wax ne moy suma sëriñ hmm. kon di andak sa talibé Mhm. dem ba nangu koo jox sa taaw ak sa xalifa dem ba di ko mhm. dugal ci sa domaine ci anam yoo xam ne dafa jéggi dayoo du neex a wax loolu dayo mhm. wóolite la waaye ka nga wóolu it jar naa wóolu kon àndi bàyyi Cheikh ture daal karaama gu ne mun leen ko cee waaye karaama gi ma ci gën neex mooy ñoom ñëpp seen personnalité daf leen mayitoon ñu wax luñ xamut te kenn ku ci nekk lim xamoon ci moromam mooy topp sunnatu rasulillahi kenn taggul sa moroom ci xam yàlla kenn taggul sa moroom ci weer mbuuti yàlla yi kenn taggul sa moroom ci yaa mën a joxe kenn taggul sa moroom ci yaa neex ku ne dafa tagg sa morom ci am xam-xam gëm yàlla ak topp sunnatu rasulillah et ça c'est mm-hmm. très importance pour nit ñi noter loolu. Mm-hmm. macha allah sëriñ bi yaakaar naa li nga wax ni euh, tellement dafa am solo solo boo xam ne nii rek doyoon na doyoon émission muy wax jooju man loolu rek ma ci intéressé muy euh, Cheikh Ibrahima mu la gisoon kon maanaam mosu koo gis loolu tam. wax la boo xam ne war nañ ci bàyyi xel su ma la gisoon kon mel na ni mosu ko gis. mosu ko eh, gis dëppoo na ak euh, Cheikh Ibrahima Niass li mu wax ay taalibeem bi zahiri shar'i wa nuurul mubiin rubbi saalikiina bila shakkin ñi na bila kaddin wala rey bi bu mu ci mën a doon rek kon mel na ni pour nga nekk taalibe bàyyi un exemple il faut nga nekk koo xam ne nii tey da ngay teg sa tànk ci charia euh, foofu bëgg naa nga defal ma benn parenthèse ñi nga xam ne dañuy askanoo seen bopp ne taalibe bàyyi lañ askanoo seen bopp ci benn kër ne ñoom ah, charia bii nii ay affaire de faux problème la loolu taxul ñu topp baay euh, est-ce que am na benn benn leçon wala benn euh, dénkaane boo xam ne mën nga leen ko dénk ci côté boobu xam nga lu ñuy njëkk a wax rek mooy hmm. imaam Cheikh dañ doon waxtaan man ak moom ci yenn mbir mu ne ma nit suñ lay sóob len lay def faasiq wala julit suñ lay tarbiya ci leen lay def faasiq wala jullit musuma dégg wax boobu hmm. mais mu gën ma ko leeralal ba ma comprendre hmm. wax bu gàtt bi te leer hmm. ku dul julit mënta nekk taalibe bàyyi maanaam yow boo ñëwee dal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi Wasallam sallam ak mboolem lu mu indi teg ca Seexu Tijaan da ngay politiquer bay rek waaye defu leen nen bay ñes nag dafa doon hmm. stratégie mondialisation bu bees bay ñas ci taaram hmm. graphique nim mu xewee yàlla dessin hmm. bay bind bu rafet bi maanaam bay dafa méngoog jamono dafa neex a kaajaa xam nga kaaja mooy téye pot di yalwaan noonu bay dafa neex a kaaja waaw xam nga <laughs> ba pare ah. mbiri baatin dafa neex a ndax du lu leer léegi nag toog rek ne affaire bi bëgg bàyyi la nangam lan mooy bëgg bàyyi damay dégg ñu hmm. naan Cheikh Ahmed Cissé dafa bëgg bàyyi Cheikh Mamoud Insa dafa bëgg bàyyi lan mooy bëgg bàyyi hmm. du sol sa mbubu desin ko bàyyi loolu bëgg aar laa ko tuddee ndax señale musu ko hmm. def waxuma dafa bon mais loolu aar la bàyyi dafa rafet nit ñi dañuy toog di desene ay tour defel seen mbubu di hmm. dessiner di freedom loolu aar la rek nga dessin bàyyi aar la c'est une hmm. amul dara lu ko def bu baay mi nit ñi dañu xàmmewul hmm. aar ak dosé ak jamono ak mbir mi lan la nit takk na njëlle ñëw ci Cheikh Oumar Touré mu ne ko xabaraka la nit duñ ko takk fañ koy bëgg maanaam nit doo ko takk danga koy bëgg te bëgg nit ki moo def jëf lam daan jëf wax lam daan wax jéem a mel nam meloon donc tay képp koo xam ne ni doo jullit mënoo nekk tijaan hmm. mënoo nekk tijaan mënoo nekk taalibe baay hmm. mais su fekkoon ne dañu xam lan mooy the most important thing ñu valoriser loolu konon tey hmm. fët yu bari ak erreur yu bari du am ba yow nga sañ a toog nekk ci lu la neex tuddee sa bopp taalibe baay mais biñ bëggee def yëfi nafeq ak fen ci leen séparé mbir nan ñetti haqaiq yooyu amul explication boo war a mun a comprendre la mais benn la mhm. mais tey mu ngi mel ni tey ma ne la Ousmane Thiam doomi Mademba Thiam mhm. Mademba Thiam amul doom Ousmane Thiam mooy doomi Mademba Thiam waaye den la wax pour nga xam ne Ousmane mi Mademba ko jur mhm. léegi nag nga bëgg a séparer Mademba ak Ousmane def leen ñaar no xam nga boo defee nii après ma dem ba soo nekkee ci nangam nang ay tappalee ki fen rek moo fi ne dara du ci dëgg. waaye hmm. xam-xam mënut leer doon xam yàlla ba pare contradict sunnatu amul. loolu wérul. Hmm. mais nag tey dañuy dem ba wan la ne affaire bi bëgg bàyyi la. léegi nag ñu léegi nag lan mooy bëgg bàyyi mooy takk kurus. Hmm. déglu zikari bàyyi. allah bàyyi joxe addiya bàyyi. yii yëpp leen def bëgg bàyyi te du loolu bëgg bàyyi topp sunna la. xeñtu sunna nangam nangam dafa ëpp loolu. Mhm. comprendre mhm. Mhm. léegi nag ñun ñëpp man may bopp bi maa ci gën a yées ñun ñëpp duñ taalibe Baay ay fenkat leen ay naafeq leen duñ jullit waaye Baay moom tàqale ko na ak ñun moom bu yàgg wax na ne ku ngeen gis mu sóobu te yeggul bokk ma ak moom kon man bokk ma ci wax na ne ku sóobu te seet bokk ma ak moom ku ngeen gis muy xotti sariya bokkuma ak moom dara moom leeral na boppam. Hmm. léegi man ak ñu mel ni man ñu koy def bokkuñ ci baay ñun ñoo fi nekk baay baay baay baay rek. waaye dama bëgg ñu xam ne tey ni tubaab yi di dajaloo di seetaan Manchester United di yuuxu di tàccu. Hmm. Manchester United sport la. noonu la ñuy seetaanee làmbu stade bi di fees mbiri bàyyi noonu leen ko def mais loolu du bàyyi dëgg-dëgg bi bàyyi bi bi nga xam ne ñu xamut nu mu demee la rek. Mhm. mais xam nga ne tey suma ma su ma sañoon tudd tur dinaa la ne nga gis nii gisoo ci Barham Diop. suma ma sañoon a tudd tur dinaa la ne mhm. nga gis nii gisoo ci Moustapha mhm. su ma sañoon a dinaa la ne yi nga gis nii gisoo ci Cheikh Mahi Cissé. su ma sañoon tudd tur dinaa la ne diw ak diw ak diw waaye ñi ma tuddut néewul ne ñi ma tuddaleen gën. kuy lim doo juum danga dul mëtal ñett laa tudd des neen million mais dama la bëgg a wax ne <laughs> koo ci gis mu xam bàyyi bëgg bàyyi nekk ci lu bàyyi di koy nawloo doo ko xeeb doo ko yeb mhm. loolu ay mhm. ay yëfi la rek loolu stratégie la mhm. ñëpp a ko mën man mii tey bis bu ma neexoon ñetti fan ma am fi junnee taalibe ñetti junnee taalibe stratégie la rek Wally Seck am na fukki junnee nit yoo xam ne bu wootee ñu uyu ji ko musique lay def mais mm-hmm. marketing moo baax équipe bi baax ñu stratégiser ko mu dem c'est ça. macha allah euh, Seydi Ahmed ñu ngi lay ñu ngi lay gërëmaat beneen yoon bu baax a baax a baax ci point boobu noonu gis nga taalibe Baay dafa war a nekk koo xam ne nii tey exemple la war a nekk ci koñ bu nekk. Euh, comme li ñuy wax euh, Hadj Moustapha Gueye mi nga tudd booba léegi dafa koy wax ne taalibe Baay du saxal karaw du sol mbaxana boo xam ne boo ko solee ñu ne voilà mbaxana pays bi wala jaaru pays bi wala kurusu yusru wala nangam ak nangam déedéet mais. taalibe Baye conception la mooy que ne ban maanaam benn concept la da ngay bu ñu nee diw a baax yaa fi gën a baax yaa fi dàq jaamu yàlla yaa fi dàq baale yaa dàq def lu baax kon loolu rek mooy taalibe baay boole ci nag ak charia bu set wecc comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi tëgg di ñaan yàlla yàlla def ñu nag ñu ñuy ay dëgg-dëgg taalibe Baye ndaay damay wax ne buñ ci jéem a génne suñu bopp même buñ ci nekkee di salte itam sëriñ bi ñaanal ñu rek ñu gën cee ci suñu dëngate dëngate yooyu noonu ñu dem ba baax ci macha allah léegi dañuy ñëw sëriñ bi ci suñu troisième point mu dese ñu benn balaa ñuy jeexal waxtaan bi ndax ngi jël temps mbokk ñuy seetaat mooy euh, Maulana Cheikh Ibrahima Niass bi nga xamee ne mille neuf cent vingt neuf trente euh, bi nga xamee ne faydu wàcc na ñëw na moment boobu noonu ana woon sëriñ bi Cheikh Mamadou Soye ak naka la sooboo ci li nga xam ne moom la fi Cheikh Ibrahima Niass indi ndeysaan boobu mu ngi mel ni gendee njolloor mu ngi ci biir mbooloo mi ndeysaan wan naa la suma góor gi dafa am personnalité mhm. gis nga côté 1925 mhm. boobu Cheikh Omar Touré mu ngi meloon noo xam ne mhm. ci am leer hmm. mu ngi meloon noo xam ne ci bëgg yàlla mu ngi meloon noo xam ne ci hmm. bëgg bay Niass ak fees xam nga faydu bi mi ñëw hmm. da fekkoon ñoom ñëpp mokkal neen alquran bul fàtte ne Seydi Aliou Cissé biñ koy dénkaane bàyyam alsan Kumba di génn àdduna mama Alaaji Abdoulaye waxoon na bàyyi ne ni muy tuuti nii doo ko yeb ne ndax alquran bul fàtte ne maam Abdou Ñang Bubu topon na Maam Alaaji Abdoulaye ba yegg fu goori di yegg bobu ñom cerno hmm. hasan dem ñu ngay ñu ngay ñu ngay bax ta ñoroguñ ñu ngay ñew hmm. du ko lori bàyyi bu baax bobu non borom xam-xam bi hmm. bobu fekk na aduna yepp ngi mar jeexal ne mbooleem masala jeexal nem tariqa bi fayde bi ñor na baye ngi bëgg a abdullah Wul Duha génn gud aduna ñu nekk ci li rek di wër ku ne di xam mbir mi te doo mën a wax ndax amagoo ndigali wax si ku yeeg bind yi di ñëw den daan toog ñeenti fan duñ lekk te duñ ko xam bi yàlla defee lam def mam mm-hmm. abdou ñang ak cheikh omar touré radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñooñu ay xarit leen woon ndax ñoom dañu mm-hmm. metti woon ci l'islam mm-hmm. bi mbir ma tàkkee réeroo am keroog Cheikh Omar mm-hmm. Touré moo doon malaykay bay Niass moo doon gardi kooram moog maam Abdou Niang ku mm-hmm. jug ñëw rek gis seen ñaari jëmm yi ñu em ni jaayaan yooyu taxaw dangay ngay dellu te duñ wax ak yow mm-hmm. bi faydu tàkkee te coow jugoon Cheikh Omar Touré moo taxawoon jëloon bakkanam jox ko Baye Niass comme ni Seydina defoon bi yonentu di gàddaay yonentu jox ko malaanam na ko sàngul buñ la reyee mala gàddul àdduna mu àjjana mu nekk ci malaan ga di ñaan ñu rey ko ngir mu dem àjjana Cheikh Omar Touré tëj bàyyi ci néeg taxaw ci bunt ba xaar ku ñëw moom mu yóbbu safara waaye kenn ñëw noonu la àndeeg Baye ba bi Baye génnee foofu ñëw Medina mu dem koosi xaar fa Baye ci àll bi Mm-hmm. keroog ba mu demee. Mm-hmm. daf ne xaabarakàlla munuñoo ñàkk a julli waaye imam baa nga Medina. ndeysaan. munuñoo ñàkk jàng naam waaye sëriñ baa nga Medina. Mm-hmm. képp koo xam ne bu ma kàbbaree du la gis suma ginnaaw. bu ma lalee wasifa doo toog. jant bi ci kër gi la lay fekk du la fekk ci tool wa. ñen fukk leen woon ak nangam ñëpp dem ñu des fa ñaar fukk ak juróom ñu bayal bay loo xam ne musuñ koo bay mm-hmm. den daan xëy fajar ba timis mm-hmm. fa la jógee moom cheikh omar touré ci àll ba ñëw sukk di sangu ci wanag bi fam téye loxom téye siyo bi pour sangu salaatu xëyre mu ne moo fam jonkon ngir sonn mm-hmm. dafa jógee ci àll ba ñëw tiim siyo ndox bi pour sangu dem julli jigéen dem lekk mhm. dem tëddi fam toog di sangu mhm. téye ko sët gi di di nelaw ba fajar mhm. kon bi nga xamee ne faydu bi ñëw na teel naa wuyu si waaye am na beneen secret bu nit ñi xamul ci mbiram Cheikh Omar damay wax man ma ne misaal bi ma koy misaalee mooy jëmm ji ñëppay jëriñante ku ci feebar sa moroom feebar. Mhm. gis nga loxo bi. Mhm. mooy raxas bopp mooy raxas mhm. lu ne. waaye xamuñ ban cër mooy mooy dimbale loxo ci jëmm ji. ku ne xam neen fan lala la bàyyi soobee fan nga yeggee nan nga defoon ba mu des Cheikh Oumar kenn mënu la ko wax ci histoire. fii la ko bàyyi soobee kii la ko booleel nii la nële la bu Cheikh Oumar Touré moom kumpa la. maa ngi sàkk ku ko xam dimbale ma ci histoire bindul ko waxuñ ko xamul ko mhm. ñu mhm. bari xam nañ ne fii leen leen sóobee fële leen yeggee seen yegg ndàngam la lii la bàyyi waxoon leetar tegtal ko waaye bosi Cheikh Omar Touré moom kumpa la baatin la moom kañ la fan la mhm. nan la man xaw ko mom hmm. lay wax mané loxo yi mom dina jëriñ cër yëpp dina mëna a nekk ak hmm. cër yëpp waye cër buy dimbalé loxo yi mom ci bir jëm ji xamuñ ko mané paye bay bi loxo yi mo da Cheikh Oumar Touré sha allah manam dal kon sëriñ bu féké dégg nañ la bu baax moy que ni kon euh, euh, Cheikh Oumar Touré kenn mënu la wax né ci waxtu bi mo xam 1929 la wala avant 29 la wala après 30 la ci le fatxom mat maanaam kenn mënulookoo koo kenn mënula koo kenn mënula koo junjal ne la waxtu bii la ci at bi macha allah kon euh, foofu xam naa xam est-ce que du dañuy ubbi foofu benn parenthèse pour ñi nga xam ne euh, xëy na am nañ ci gëstu ndax euh, du ñàkk ñu ngi am benn livre boo xam ne yaakaar naa maam Cheikh Serigne Mbaye Niass bindoon na ko ci mag ñi nga xam ne ñu àndaloon ak Baye niñ toftaloo seen seen yegg ci yàlla dafa mel ni foofu am na am na am na foofu kon benn ruq bu ndaw boo xam ne xam ah, naa après ko bàyyi donc kon sëriñ bi daal bu fekkee dégg nañ la bu baax mooy que ne maam Cheikh euh, Omar Touré radiallahu taala anhu euh, kenn mënu la wax ne ci waxtu bi lam fàttu boo xamee ne yàlla may na ko lim ko may ci fatxu bu leer boo xam ne kenn xamul kañ la naka la daan soobe taalibe yi nga xam ne nii tey ñu ngi ko doon dikkal ci li nga xam ne moom la ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ginnaaw sharia beeg yooyu naka la daan sóobee ay taalibeem naka la leen daan yaree ci yàlla. yar bu métti. bismillah moo daan wax ne moo daan wax ne xabarakalla kuñ naxut mënuloo naxee kuñ yombalut mënuloo yombal. Mhm. bay Modou Habib Touré ak Alaaji Birane Cissé ak Alaaji Jëbu ay mag leen. Mhm. Eh, ñaar ñi gaañu neen kenn kaa ngi dund ñoom ñëpp passé neen juróom-ñett fukki at dund neen lu ko mhm. Cheikh Omar Touré bi mu leen di sóob daf daan toog rek ba fajar mu génnee pili ba guddi mu génnee piliyaanam moom bu mhm. reeree ba galax ndeku ba jublu penku bu jógee dafa demaat jumaa julli moom noonu la Moussa mel Cheikh Omar Touré mhm. mu yëkkati semmeñ rek jox leen garab bu nekkoon ci bunti këram ne neen ko daane bala fajar te amu ci benn soxla waaye bugg leen a sonnal rek <laughs> suma bàyyi Modou Habib di dóor di dóor ba sonn mu ñëw na ko bàyyi garab gaa ngay génnee safara mu muuñ bala daan kontaan rek mu liggéey loola ba nga sonn kër jigéen mi mës di lakk mu génn na ana ala jëbu xanaa nekkul fa mooy ki doon tarbiya alaaj jëmul naawee fam toog rek dem ci safara si tibb ko rek sànni mu ne ha baraka la le la moo da tarbiya euh, soo bu métti la daan def da ngay liggéey moom tarbiyaam da ngay liggéey doo noppale ko da ngay wir da doo noppale ko da ngay dogu nit ñi moom kër ga sa waxuma moom jamonoom de ñun suñ jamono bi ñuy tarbiya boo waxee sa wax ak nit nii yow da ngay tit ba mel yow doo xam yàlla yow wax kessé rek na nga def mang fi yow da ngay melni ni hmm. yow sa tarbiya yàqu na yow xamuñ ko ci kër ga fofu mom bo xasse hmm. suubu tarbiya kenn ngay waxal moy kañ la booleel ba pare dootoo wax ak ku yalla bind du téléphone du message du dara doto hmm. sangu ci juma ja ngay nek do genn man tarbiya na wé rek ñaari fan gennuma juma ja do sangu do def dara yaay balé juma ji yaay ubbi yaay def lem, bu nit ñi di julli nga dem ci ginnaw julli yaay lal basangi hmm. wasifa yi yaay lalli yaay balé kër ga bam daj yaay rotal jigen ñu ndox man hmm. lool la fekkee hmm. ta am naay mag ñooñu seen mag la cheikh omar touré door tarbiya te so ñewaan daan ko laaj tarbiya daf la naan barakallah ma jeexal nga téré sangamam nga ne ko déré mu ne la tarbiya tarbiya fay motali doxal jangi musta soob nit te faaw nga jàng diine bam leer ci yow nga jàng sharia nga ñëw nekk ci tarixa tijaan bi ba nga jógee foofu mu di la dawlo lu mat at nga door a ñëw mu sóob la tarbiya nam lay soobee nag secret la yaag moom ndax man soobut ma waaye xam naa ne ni ñuy def léegi ñëw rek dama bëgg xam yàlla ñu ne la lii ngay wér musu koo def dana la laaj foo toll nga ne ko nanga mu ne la bu la ko yàlla demal jàngi Mm-hmm. mo daan wax ne tarbiya fay yàq jàng jàngal ba pare tarbiya ci mm-hmm. kon nit la woon koo xam ne bala laa sóob dina fexe ba nga xam dina fexe ba nga setal mm-hmm. shariatul islamia dina fexe ba nga yàgg ci tariqa bi dina fexe ba nga xam ne mbir mi mbuut la du caaxaan muy yar sa bakkan yar la ci yar la ci jaamu yàlla yar la ci noppi door laa xamal mbir mi boo fa nila moom dootoo fa nii la daan sóobee mais sëriñ bi foo bëggoon naa fa itam ñu taf ñu taxaw fa tuuti pour mbokki taalib yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan comme li nga wax léegi ñoom balaa ñu la daan soob dinañ xool sa sa wa njëkk fa la toll ñu gis ne dégg nañ ci mag ñi balaa ñu la daan jox uh, askaru tarbiya mu bon bon bon bon danañ la jàngaloo uh, soit mun yëttul murid wala ñu jàngaloo la ruhul ada bi nga xam ne Cheikh Ibrahima niès moo ko taalib ñu gis ne tey génération bii ni ndaw ñu bëri suma classe gi tey ñetti abiyaat yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo jiitu ci roowul ëdëb sax xamuñ ko mokkaluñ ko tey ñooñu ñu sóob leen tarbiya aussi tamit ñu gisaat beneen jamono mooy bu njëkk dañu gis koo xam ne bu daan tarbiya bu ko yàlla mayee fatu moo xam sax amagul fatu tey mën naa fekk safara bu tànk bu dugal ci loxoom te dara du xew ñu gis ne léegi façon xaal yooyu noonu gisatuñ ko ci jamono jii ndax tarbiya ba woon moo nekk tut wala dafa am leneen lu ci rax xam nga nga tarbiye nit ak nga teg sa marché di ut marché nit du benn tey soo nekkee ci système yow public rek nga bëgg hmm. nit dala naan sëriñ bi man dama bëgg a tarbiye ci weekend bi nga ne ko mën na nekkee ngir bugg mu yokk ci nombre bi ci weekend bi léegi dañ koy programmer allo sëñ bi nu mu demee ñu ngi ziar jot nga wari bi waaw dama bëgg a tarbiye ci weekend waaw incha allah dina mën a nekk jeex na <laughs> dafa am dafa am benn sëti Baye Niass hmm. mu nekk Amérique am ku ko ne dama bëgg a tarbiya waaye man dama bëgg a jël liif une semaine sëti Baye bi na ko mënta nekk mu koy topp rek mu ne ko mënta nekk moom daal da ngay dogu ci àdduna ne da nga bëgg xam yàlla nga dem tarbiya ji waxtu boo xamee baax na. Hmm. benn muqaddam ndeysaan gaañu na Dakar la nekkoon ku siw. Hmm. dem Amérique waji wax ko ko mu ko jëlal ñetti fan liif dina la tarbiya nga xam yàlla hmm. seti bay bi dem liggéey ñëwaat mu ne ko sawaay yow gisuma la semaine bële mu ne ko man tarbiya naa ba dox seeru ba pare mu ne ko ku la tarbiya mu ne ko diw ñu dem ci diw mu ko koy laaj diw na ko may ñu ñu wax bi talibé bi génnee mu ko li def sa yoon nekku ci na nga màndu sa sa bopp ju hmm. nonu dem na dema dema dema dema dema dem ba mom mu sédé na xamut yalla mu dem ci Cheikh Mbaye Cissé mu sóob hmm. ginnaw fukki at ak benn hmm. gis na ñuy tarbiya ta moko luñ salatul fatihi lima wax lepp am na ñuy tarbiya te jëluñ wirda tijaan am na ñuy mënu ñoo sangu sa farata mais nan ngay peinturer néeg te amoo fondation tabaxoo nga ñëw rek peinture décoré tarbiya décoration la fondation mhm. bi moy gëm yàlla mhm. bëgg yalla dogu ci mhm. yalla nga door ko xam nag yalla gëm la jital ci xam wala bëgg gëm xam da ngay bëgg yalla ba paré nga gëm ko nga xam so tourné foofu nag nga ci benen mbëggeel go xam mo lay jëriñ moo sirru muhabbati duñ ko secret bi bëgg la waaye nan donc ñi ñi man suma masque gi ci luñ nekk yëpp système système la rek xam nga hmm. ut fi benn taalibe musicien fii ut sa benn waay fii dajala sa ay théâtre kat ñu lay wéyee ka zikar ngay yaanu di bindee ka hmm. defaruwaat diw ma leer sëñ bi génn na kaay nguur la rek quoi en fait affaire yi nguur la ba hmm. pare mooy système bu gën a con parce que tey yow suma àndoon ak yow ci masala dooma ndax ci masala mais mbiri tab yàlla la da ngay toog mm. bindi <laughs> wax leen jërëjëfee bàyyi ñëpp ne jërëjëfee bàyyi yuuxu affaire yi yooyu parce que xam yàlla gi moo leerul bay sell muqaddam bu yeggut ci yàlla munut laa yeggale ci yàlla muqaddam bu mm. xamut yàlla munut laa xamal yàlla mm-hmm. gisoo waa jox lijaasa mu ne dama koy takk wala dama koy sango kooku xamul lijaasa <laughs> donc <laughs> eh. affaire bi mag ñi nañ daan mm-hmm. soobee mu ngi am ba tey mm-hmm. même jamono mag ñi am nañu daan soobu te xamuñ yàlla sëriñ mbay ña soob na nit ku xamut yàlla sëñ Aliou Cissé soob na nit ku xamut yàlla Cheikh Omar Touré soob na nit ku xam ñoom moomuñ yàlla mm-hmm. tegtal la yoon bi leen yow yaay dem yàlla xaccal la boppam diggante yàlla ak nit ki yoon kenn nekku ci Cheikh Omar Touré indi na nit tuubal ko na ko xabarakalla ku ma tuubal doo tubbi de mhm. kooku tubbi waxutoon ne moom kum tuubal nga dee ci lislaam de daf lay woon ne kum tuubal boo tubbee yow yàqu nga mhm. amut mag ñi ànd ak bàyyi ku ci sóob ñëpp ñëpp yegg ci yàlla loolu amul mhm. ndax nit ki soo ko sóobee jaarale ko nii deful ko ndax danga ko mën a forcer mu yegg ci yàlla mënoo ci dara am na ñu ñëw ci signalé mu jox leen tarbiya sànni leen ci jumaa ji mu soof leen rek ñu jël seen dàll daw dem Dakar. Mhm. toog fa tuuti mhm. def xarit nit ñi wur wur na nii ne mu xaddam leen te yàlla xam na ne signalé moo leen sóoboon ñu daw xamuñ yàlla. Mhm. xamuñ yàlla. Cheikh Omar Touré ngi nii am na am na ci loolu noonu am na ñoo xam ne dañuy nekk ci nit ñi rek jaxasoo ñoom rek def sa sikkiñ bi comme ni ko def noonu sol nii toog tuuti rek sol dara rek nekk mu xaddam xamuñ yàlla. dama bëgg wax wax ji leer ne du sëti baay du doomi baay du mu baay du sant ku xamut yàlla munoo xamle yàlla point pour mu gàtt te leer waaye léegi muqaddam yi nii système la nit ñi nga bëgg mu bari mbooloo mi bari ñu naan sëñ bee amee bës bi suñ ne <laughs> taalibe bàyyi nangam nga joxe cinq millions sept millions pour ñu am ngërmande nangam nekk ci système bi rek système bi dafa am nu muy doxee donc pour mu leer jamono dem na ba tey ku nekk vrai taalibe doo taalibe ku nekkul vrai taalibe mooy taalibe wax jooju lan laa ci jublu tey. boo jàngoon sariya te mu leer. Mhm. buñ noddee nga waaxu dugg ci jumaay Medina ja julli. boo mhm. paree dugg ci rawdu bi ñaanal yàlla Baay ñes ñaan yàlla ci mhm. barkeem doo ñaan ci Baay bokkaale la ñun duñ ko def. man ibaadu yi den may déglu dama bëgg mu leer gis naa leen ñu ngi may seetaan. doo ñaan ci bay Baay amul dee na da ngay mm. ñaanal yàlla bàyyi ñaan ci barkeem su ko defee nga mm. pare foofu dem wasi fa léegi lii ku ko mel mm. doo taalibe den naan ah diw amul njëriñ moom du joxe dara kurusam gu rëy mais tey bu julli jotee nga rasu téye sa mobile di connecté buñ ne addee ah, bàyyi nga joxe un million moom num jeexee ci bàyyi ziare bi un million la joxe mais ziare bi un la joxe julli tusubaar gën ko biñ demee ba gërëm nit ci lu dul jëf ci yàlla ci yoonu yàlla la mbir mi yàpp tey man bëgg naa ko ma gërëm du ma góorgóorlu ci wasifa bi du ma góorgóorlu ci su may zikar zikar yi bàyyi ñe si ma wax roofi mu leer du ma góorgóorlu ci xam mbiram bàyyi damay góorgóorlu rek ci yére bu rafet ci poster yu bari ci maye xaalis ñu gërëm ma sant ma donc dafay dévier nit ñi hmm. yàq bi fi mu dooree dafa bëri hmm. defar ko du yomb waaye di nga mun a dénoncer que ne mhm. ku xamut lislaam gëmoo ko nekkoo ci mënoo xam yàlla pour mu gàtt ndax bàyyi lim indi moo ko moom mhm. waaye jotul ko de daf ko jëlee ci tariqa tijaan la ko jëlee mhm. daf ko jëlee ci sunnatu rasulillahi su fekkoon bàyyi dafa jot alalam directement konoon kum neex nga bàyyi lislaam te nekk taalibe bàyyi mais mm-hmm. bàyyi mm-hmm. jotul dafa jël. bàyyi jotul dafa jël. dafa jëlee ci tarixa tijaan faydu tijaan ya mm-hmm. donc affaire bi dafa leer système la rek ak ay dóor ñëpp mun neen ko ah. <laughs> macha allah yàlla yàlla yàlla mosal ci système ak dóor boobu noonu parce que doy na ci rek ci li nga wax sànq mooy ne euh, mag ñi seen tarbiya yombutoon yombu te kenn ku ci nekk rek dinañ la teg ci yoon boo xam ne yow ci sa bopp boo ci tegoo di nga xam ne dëgg-dëgg. ndax yoon eh, bi mu ngi nii wala du nii parce que Cheikh Amadou Touré mi yàlla mayoon sharaf ba ku mënta ànd ku mënta julli ji waxtu yu juróom mënoo ànd ak Cheikh mii nii loolu yaakaar naa waxam la moom moo ko wax koo xam ne nii bu buñ ne jàng te yow mënoo jàng buñ ne xam-xam te yow mënoo joxe xam liggéeyal bàyyi te yow mënoo joxe ci bàyyi dëgg-dëgg yow kooku mënuloo ànd ak mënuloo ànd ak Cheikh kon loolu yaakaar naa am na solo pour bokki taalibe ñu xam ko bu baax taalibe bàyyi comme ni ko sëriñ waxee du système du affaire de maala dàq joxe addiya bien vrai que ci la bokk ndax ku am si sëriñ di nga ko mais dafa war a fekk ne xidma bi am na lu ko war a jiitu mooy topp xam-xam njëkk ndax loolu la fi bàyyi indi balaa balaa xidmaak yooyu noonu yëpp xam-xam la mooy xam yàlla bi nga xam ne moom la fi euh, Maulana Cheikh Ibrahima Niass indi sëriñ bi pour ñu ñëw ci suñu point bu mujj ndax waxtu bi mu ngi dem ndax dafa gum nañ euh, euh, bi nga xamee ne Cheikh Omar radiallahu anhu dund naag Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci wax ci mën ngaa wax ne atam yu ëpp ci ron Maulana Cheikh Ibrahima Niass la ko la ko dundee ñu dem ba benn jamono 1975 Baye radiyallahu anhu daal di fàddu Maulana Cheikh Omar Touré gisatul Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne nii tey moo doon sëriñam euh, fàddu goo nga xam ne sëriñ bi fàddu na ko ci zahir gisatu ko naka lu ko sëriñ bi daan dundee ak tamit euh, digganteem ak njabootu Cheikh Ibrahima Niass naka la demee woon. damay njëkk a leeral la nga wax moom daf na këram gi ha barakalla maa ngi samp ci jajawa fa ngay jàngi julli wasifa ji moom këram amut fay jajawa jàng julli wasifa moom lii mooy sartaam mm-hmm. Mm-hmm. boo julliwut dafay toog paagal la sa bagage ne ha barakalla nuyul ma fa nga jóge Mm. Mawlana El Hadji Cheikh Omar radiyallahu anhu 1975 la gëj déglu rajo daf ne xa barakalla dootoo ma tàggeeti de bu ubbi rajo dégg ñu tàggee bàyyi keroog la tàqale koog rajo. <laughs> est-ce que <laughs> d'accord. xa barakalla dootoo de. ndeysaan. sëñ Aliou dafa waxoon benn wax bu rëy ah. daf ne bàyyi su tukkiwaan. Hmm. den ko daan namm bay feebar. ndeysaan mu ne waaye dem na bu tukkee duñ ko namu ndax mu ngi si suñ xol yi. ndeysaan ndeysaan gaaño eh, bi Baye ñëwoon na ci dëj ba. taxawee na lam waroon a taxawee. Hmm. de kaseti dëj ba yaa ngi koy dégg. ba ñu waxee ci noppem gu rëy gi. mu ne xa barakalla waxi alaaji Abdoulaye ji fa ma wedem loo tegul ci beneen kàddu loolu rek la wax loolu ñëpp a ngi koy dégg mu ngi ci kaset yi xa barakalla waxi alaaji Abdoulaye ji fa ma wedem pare na ci dëj ba jeex mu ñibbi këram mhm. soixante quinze soixante seize soixante dix sept soixante dix huit Mm-hmm. mu xëy rek yeewi mbooleem taalibeem ne xa barakalla ku fi jàng hut ku fi indi won doxal ñibbi mm-hmm. fëlee ma jëm nag mm-hmm. jigéen ca waañ wa góor ca daara ne julli suma Muno ubbi téere muno mënoo wasifa bal ma top boda dom soxna yewi nala boda dom togal file demal sa kër dom ñaari la andal ñu jurut kenn ki doomi mam Omar Fati Diallo la ñu wax Cheikh muhammad Nazir nyas daf ko ne demal mu ne ko man dew ma su daf mala mayon mu ne ko nga ma de jekil ak Malick Cissé mi ma jur man. Mhm. Mhm. ndeysaan euh, sëriñ bi mu ngi fu neex fu am solo ndeysaan macha allah ci ñi nga xam ne ñoom la Mawlana Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu ci dëkkam bi nga xam ne bi nga xamee ne ñetti at ginnaaw bi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass a àddina képp koo xam ne mënu ànd ak moom ci eh, lim yi nga xam ne taalibe nga mën ngaa des bu dee doom nga mën ngaa des ñu mel ni rek xanaa loolu mooy gaalab yonent yàlla noox euh, alayhi salaam <laughs> macha allah tey gis ngeen amoon nañ gan bu bu am solo mu mel ni problème mu réseau connexion mu am ba sëriñ bi xaw a euh, dem tuuti waaye yaakaar naa mi ngi mi ngi mi ngi ñëwaat léegi léegi léegi léegi incha allah euh, gis ngeen sëriñ bi ñu doon waxtaanee léegi muy Maam Omar Touré radiyallahu anhu ci détermination bi nga xam ne amoon na ko mais aussi ci njàmbaar ak fulla te ku dem ba mën a jàkkaarloo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ne ko bu fekkoon ne gis naa te loolu wax ji te man tey laa koy soog a bàyyi xel kon maanaam loolu mooy wane ne kon gisuma diirab lim dund ak yéen euh, Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu masta gis fu bàyyi teggee tànkam ci charia léppam sunna la Euh, loolu wax ju mat a bàyyi xel la kon ñun ñi nga xam ne nii tey ñun ñooy ay moo taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dëgg-dëgg war nañoo xool ci jàngale mag ñi li ñu fi bàyyi mooy euh, xam-xam mais aussi tamit topp charia ndax euh, bàyyi dëgg la xam-xam la fi indi muy maxarifa bu leer nañ nañ nañ nañ mais avant maxarifa bi gis nga wax ji lam ko commencé bi zahiri charia commencé wul ci xaqiqa bi muy baatin bi waaye charia bi ci boppam moom la njëkk a jiital kon taalibe bàyyi égal mu xam charia njëkk ndax euh, gis nga euh, balaa ngi la daan soob dégg nga li wax ku ñëw bëggaan mu sóob la jox la askaru tarbiya da lay laaj foo tollu ci jàng est-ce que jàng nga Hmm? bu ko defee kon euh, loolu ñu bàyyi ci xel bëgg mbooloo bu mu tax ku ñëw rek ñu yëkkati askar jox la ku ñëw rek ñu nangam nangam nangam la donc loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bàyyi lim indi dafa leer muy xam-xam moom maam Cheikh Omar Touré nag euh, kenn la ci ponk euh, Maolana Cheikh Ibrahima Niass yi nga xam ne tey dëgg-dëgg lu may di leen ñaanal yàlla yàlla taas ñu ci seen seen barke dinañu jafé sax pour ñu teunk li nga xamni mom la fi serigne wax tellement que dafa éloquent dafa dafa nit ku yalla may sagesse la ma sha Allah ko xamne euh, mën na wax ba paré sax yow wax ji lo ci bëgg tek rek moy gongo gongo rek ci bëgg tek euh, kon euh, koku moy cheikh ahmad yakarna dafa xawone

marhaban sëriñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax Seydi Mouhamed euh, ñu ngi lay ziare yow tamit euh, macha ñu ngi lay ziare yow si Cheikh Ibrahim euh, Famara Tam yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu Seydi Aliou vraiment bu ñu leen bëggee buñ bëggee lim duñ juum mais dañ dul dañ dul matal kon yaakaar na bu fekkee dafay jar pour ñu ñu yemale ko foofu mais xaa ñu jëm ko jéem ko woowaat pour mu tënkal ñu ak tam euh, émission bi ni ñu ko baaxee woon toujours rek kuñ fi dalal da ñu euh, dénkaat beneen yoon mais aussi tamit ñaanal ñu yàlla te ñaan googu noonu ñun ñëpp ñoo ko bokk ak ñi nga xam ne ni tey ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo ñuy teewlu bu baax a baax a baax mais yaakaar naa li mu bëggoon yëpp am nañ ko muy satisfaction vraiment satisfaction ci xamal ñu Mame Cheikh Omar Touré ci euh, dundam niñ dundee. ñu dundee ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci xam-xamam ni mu daan yaree ni mu daan jàngalee mais li ñu ci gën a marqué mooy ndekete euh, gëj naa déglu rajo 1975 bi Cheikh Ibrahima Niass euh, génne àddina mu déglu ko ci rajo mu tàggee moom nee na boobu la gëj a déglu rajo ndax euh, rajo ku ñàkk ëdëb <laughs> ci ni ma ko mën a waxee ba mën a tàggee ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom keroog la tàqali ko rajo. donc gis nga loolu daf lay jàngal mbëggeel euh, dara boo boo ko boo ko bëggee bu commencé di la ñuy rek mbir rek da gis ne da koy da ngay da ngay denc loolu carrément moom noonu la noonu la meloon ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu euh, jéem koo bëggante ak dara fépp fu mën a dem sax da ngay gis ne Cheikh Ibrahima Niass ci boppam moo koy xëccaat bi woowaat ko ne ko acca ñëwal fii mbir mi fii la koo xam ne nii tey loo am euh, dëgg-dëgg keneen yow soxla soxlawoo leneen ci keneen ma leeral ko sànq ni kuréel tukki doo xam fu dëkk neexee euh, kon kooku moo nekkoon suñu ganu bés muy Cheikh Ahmed euh, Cissé ma wax ne paaka ñaari boor la ndax tey buñ ko waxtaanloo woon ci euh, babul xadrati Seydi Aliou Cissé comme lim jot wax nii rek loolu la ciy wax mais aussi tey gis nga waxtaane nañu ci ci beneen wàll bi ci côté ci côté maam Omar Touré mu waxtaan ci waxtaan bu am solo kon yaakaar naa mbokk yi ñu ah, ngi doon bëgg hmm, oh ok ah, sëriñ bi ñu ngi koy jégalu bu baax nee na dafa amoon problème connexion ñu ngi koy jégalu mais nee na mi ngi noonu pour jëndaat pass xam naa ñu may ko benn cinq minutes rek mu duggaat eh, vraiment bu ko defee ñu ñu mu ànd ak ñun mu tëjal ñu eh, programme bi vraiment commentaire yi xam naa buñ ko naree topp ndeysaan macha allah donc il y a quand même ngeen am ngeen am satisfaction mais duñ fait, eh, aussi di di remercier vraiment di remercier euh, wa Obilus TV yëpp dalee ci euh, le directeur général euh, le professeur Amath Ndiaye. vraiment ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ni mu ngi ko doon jàppale mbokk yi nga xam ne xëy na jotuñoo nekk jotuñoo nekk ami ci Facebook bi mais ñu ngi ko doon seetaan à travers euh, YouTube euh, ñoom tam ñu ngi leen di bu baax a baax a baax waa Obelus TV yëpp euh, ci njiital le professeur Amath Ndiaye et sa femme madame madame Ndiaye ñoom ñëpp vraiment ñi nga xam ne équipe bi ñu nekkoon ci équipe technique bi yëpp macha allah Seydi Malick Thiam. Masyaallah allah ñu ngi lay ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax Seyda madame Ndiaye Zeynabu Zeynabu Sakho ñu ngi lay ziare euh, bu baax a baax a baax Mariama vraiment ñu leen di ñu leen di bëggee bu baax baax baax baax macha kon amaat euh, yow mënuñ lu may di la di la di la ndokkeel di la di la ñaanal yàlla ndax euh, ndokkeel la mooy ndokkeel suñu bopp ñaanal la mooy ñaanal suñu bopp wax dëgg yàlla amuñ sa fay yàlla na yàlla fayanteeg yow Baye Ibrahima ko macha allah waa nga dégg ndeysaan Serigne bi Cheikh Ibrahima Ngom eh, nee na kii mooy borom anti eh, nan la ko waatee sax. anti système anti système waaw ah, ok macha allah Fayda waaw wax nga dëgg de parce que comme ni mu ko waxee léegi faydu bi dafa bëri dafa bëri ay système dafa bëri eh, xaw ma naka laa koy tuddee duñ ko tuddee sax dóor mais bon noonu lañ koy mën a waxee rek parce que comme Cheikh Mamadou Mahi. Ali nga xam ne mooy porte parole euh, faydu bi dafay wax mu ne mbooloo moo gis rek dana am ñoo xam ne danañ ci juux te ñoo xam ne bokkuñ ci xam ngeen ne bu tawee ndox mi ci biir euh, façon ndox mu ne dana ci jaxasoo hmm? ndox yi égu yi nekk ci kër yeeg yeneen yëpp yëpp yëpp yëpp dana ci jaxasoo terewul euh, ndox moom di ndox rek waaw terewul ndox di ndox kon vraiment. waxtaan bi mu ngi woon noonu xam naa sëriñ bi bu ñëwee ñu mu tënkal ñu rek yes okay so we can conclude mm Euh, Mashallah. donc xam euh, naa duñ a jël yenn question yu bare bare bare bare pour euh, euh, pour sëriñ bi bu ñëwaatee dañ koy dañ koy briefing après ñu ñu parce que daf ne dafay ndax actuellement nii nekkul nekkul Sénégal mi ngi ngi Gambie ndax li ci sax courant bu coupé yooyu noonu mais alhamdulilah yàlla defal ñu liñ bëggoon ci ci ci waxtaan bi wax dëgg yàlla am nañ ci ba am lu ëpp suñu suñu njortu ak niñ ko bëggee woon euh, loolu yëpp dañ ci dañ koy sante yàlla subhanahu wa di ñaan yàlla saa su nekk rek yàlla nay yàlla nay demee nii yàlla nay demee nii euh, kon euh, xam naa dañuy daal di joxante dig daje. ba samedi bi di ñew inshallah ñu nar ci andat ak benen benen benen benen borom xam-xam mu waxtaanal ñu eh, ci kenen ci ci mag ñi comme ni mako waxe waxee rek ndax mag ñi vraiment kenn ku ci nek rek bidiw nga ci ci cheikh ibrahima ñes radiallahu anhu eh. ndax ko ci top rek eh, da ngay gis ne yow yaa ngi ci ndax mbir mi da fay melni rek comme ben château d'eau Euh, muqaddam mi kenn ku ci nekk rek robine nga ci mbir mi te ñu ñëpp ñoo bokk fi ñuy jëlee muy ci château d'eau bu mag bi te mooy Cheikh Ibrahima donc boo demee euh, boo demee boo demee ci ci yenn gox yi benn muqaddamam fa ci biir gox boobu noonu nga gisaat ne kër gu nekk am na ay robine robinet robinet robinet lépp noonu lañ mel terewul liy génn moom fenn rek lay génnee mooy ci ci château boobu noonu Seydi euh, Papa Nguer maa ngi lay maa lay ziare bu baax a baax Seydi Mokhtar ñu ngi lay ziar naka Ndiaye naka naka waa Winnipeg yëpp mbaa mbaa ñu ngi ci jàmm ziar naa leen bëggee naa leen bu baax a baax a baax a baax macha allah bon kon euh, mbokk yi noonu la def ba samedi bi di ñëw wala bi ci topp incha allah ñu xool naka la ñuy naka la ñuy jëlaatee keneen yaakaar naa bii di ñoo bëggoon nañoo jël euh, euh, ki doon présenté ci tàmbalima bi muy muy muy Seydi Seydi Aliou Cissé mbay muy ndaamal bàyyi nga xam ne borom borom borom baat bu neex boobu noonu ngeen di dégg ci suuf nii léegi kooku moom lañ war euh, ci topp ak euh, juróom ñi nga xam ne euh, xaadimu Cheikh Ibrahima si moom tamit liggéeyal na bàyyi ci côté bu nekk rawatina ci ci ci liggéeyam papa maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax na naka waa waa PA alhamdulilah Seydou Ousmane yéen ñëpp ñu ngi leen di déggee Farsakho macha allah ñu ngi leen di jaare bu baax a baax a baax kon mbokk yi loolu mooy loolu moo nekkoon seen seen émission tey euh, ñoom Faydu àndoon ci ak euh, Seydi Ahmed Cissé mu doon waxtaan ci kenno Faydu bi muy euh, maam Cheikh Oumar Touré kon ñu leen di jox di déggee ba beneen yoon. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته